صلاة الذي في كل سهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحس والسفر ki ma joxoon confiance muy président Abdoulaye Wade moo ma confiance rek ak député yi nga xam ne ak ñoom ñu tabaat ma ci bopp bi ci tabbin woo xamante wu yomb woo xam amul benn jafe-jafe ndax jàpp naa ne

danañu taxaw assemblée nationale xeexal leen ko ba loola am ndax bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne tey ñëpp gis nañu ko tuuba dund ko ci wàllu ndox mi ndax yàgg nañ koo wax ndax euh, ministre bi dëggal na ko président Abdoulaye Wade bi ñu fiy jógee ñaar fukki forage ak juróom-ñett moo fi neewoon li jëpp ci forage yi moo ko fi defoon waaye gis nañ ñoom bi ñu toogee seen juróom-ñetti at yi ministre bi nee na fanweeri forage lañ toll tey kon boo xoolee kon ñaari forage lañ fi def ci euh, juróom-ñaari at ba juróom-ñetti at yi ñu toog loolu dafay wane ne taxawaay ak dox bi nga xam ne waroon nañ koo dox ci wàllu ndoxu Touba doxin boobu lañ doxul moo tax tey jii yàlla attee nañu ak ñoom ndax yàgg nañ leen ko wax yàgg nañ leen a wax ni leen Touba mi ngi màggal gi mi ngi jëm ci am nawet ca dëkk boo xam ne mooy deuxième ville du Sénégal ba léegi amul assainissement taxaw leen ci taxawaay bi ngeen taxaw bi ngeen war a taxawaay ci wàllu assainissement defu leen ko Touba ca bu ñu demee tuuti ay at yu néew ci kanam màggal gi ci digg nawet lay ne ca bu boobaa danañu am jafe ci gan ñi bu ñu ñëwee pour dugg ci dëkk bi danañ am jafe-jafe ci wàllu ay taataa ak i déeg kër yi danañ fees ak ndox ca bu boobaa loolu dana metti السفر